ko yëkkati ci turu le gouverneur de la région de Diourbel di ko yëkkati ci turu le préfet du département de mu nekk kàddu yoo xam ni kàddu sant la ak kàddu ngërëm jëm ci sang bu tedd bi xalifa bu sell bi Cheikh Mountakha Bachir ko yàlla kattan mi ngi koy liggéeyal maamam am ci ndam yu rëy di jël nuyoo bu sell di ko teg ci sëñ Abdou sëñ Bass Abdou Xaan ñu ñu dimbale nu lu tuuti rek ñu yeggale liggéey bi nan nu dimbale ci kàddu yi teewlu tuuti ñu yeggale liggéey bi kuy waxtaan lu mënta ñàkk sax jar na nga génn di jël nuyo bi di ko teg ci loxoom mu tegal ñu ko ci njabootu xaadim rasool yi fi teew yépp di ko ñaanal yàlla moom wóolute bi nga xam ni mag ñi am nañ ko ci moom mu àggale ko ak sago am ci ndam lu rëy li ñu fi dajale tey nag dafa bokk ci ndab bi nga xam ni nii moom la yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam yàkkal xaadim rasul te subhaanahu wa taala jox ko bi mu ànd kook nitu yàlla yi nga xam ne nii ñoo nekk ci kaw suuf ñépp rawatina fii ci Sénégal te li la koy firndeel mooy ku ci nekk am na téere bu bind ak baat yoo xam ni ni wax na ko jëmale ko ci sangu tedd bi ndax loolu moo nekk nii tey ñu ci bànneexu di ci am mbëgte ba tey jii képp kuy nekk jullit fii ci Touba fii ci Sénégal ak ci àdduna yaa ngi ci bànneexu ba mu waral bis bi tey di wàcc foofu suñuy kàddu di ñaanal comité d'organisation bi lii ngeen sumbut nii ren mu nekk première édition di leen ñaanal mu nekk luy wëy mu dem ba ay ndam yu rëy rëy aju ci jërëjëf asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Mansour Niang mu nekk adjoint sous-préfet ñëwoon doon jox kàddu ci turu gouvernement kon xam naa ñu jox euh, sëriñ Moustapha Diakhaté am na kàddu yu mu bëgg a joxe.